président kenn ku ci nekk yaa ngi ay bëgg ñu jàppale gën koo taxaw kon nag noo ngi ñaan Mbàkke nga ñaanal ko ñaanal njaboot bi mu fi bàyyi sans borom sàmm ba bu baax a baax kàddu bi na lii ci xam ne si am di Modou Mbend mii xalifa Baye ci moom la jéggul woon waaye keroog bi ñu ko yaay Seex Faal la ne ko demal jébbalu ci xalifa Sëñ Tuubaa loolu dafa ma marqué rek wax naa ko ci télévision bi wax naa ko mais xoolal loolu xalifa mu toll nii mu leer Baay Faal mooy sa kilifa boo ko yilifee yilif Baay Faal yëpp nga ne ko demal Sëñ Tuubaa transféré sa ab ci sëñ Moussa jox ko sama am nga defaat naa ko seet yaram nga amin amin amin amin amin amin amin jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke président Bougane sax na lool xolam sedd la sëñ Moussa Mbacke xaalis baaw ba mottali sa yéen noo ngi lay ñaanal nga yeggale li nga bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Omar ba sëñ Youssou wala sëñ Mamoun mii doon wax rek koo ci yebaloon mu doy sëkk wala sëriñ Cheikh Mbacke mu bi doon sëkk boo yebaloon Cheikh Mbacke dafa demal waaye nag xam ne sëñ Mbacke nga ndax xam nga li mu def ci yow ak fi mu la féete nga ñaanal mbooloo mi fi nekk ak njaboot bàyyi yàlla wéral leen yàggal leen may leen ñu jaar fi seen wajur wa jaaroon ba liggéey lu doon dafa am lu triste lu mu nettali léegi dafa am benn xale boo xam ne fii la fanaan biir président ñëw nuyu ko mun na ko xamoo ma de mun na ko déedéet mu ne ko soxna moom bi moo ma fayee jàng ba ma am bac mu ne ko foo ko xamee mu ne ko dafa nekkoon ci benn supermarché di jënd ay bagages ma koy jàppale bagages yi ma gis mu gis rek ma koy jàppale nee na mu ne ko yow loolu def yi ba jàngoo ak as bii nga toll ngay roñ ay bagages mu ne ko sama waajur moo amul lu ma fayal sama tool yi mu ne ko su la fayalee di nga jàng mu ne ko waaw nee na la ko dugal di ko jàngal ba mu am bac xale bi dix fi la fanaan te it loolu sunu yaay jaadaa ngi nii di doog a yegg si moom di jaale doomam ndeysaan lii daw na yaram lool ndeysaan lii daw na yaram lool nee na ko sa yaay moo dem sa xarit moo dem man sa maam laa de kii dem sa yaay moo dem sa xarit moo dem sa waaye nee moom mii di bugaan mu liggéey ak man ci Sud FM wane fa ngor wane fa jàmba sëñ xarit Samb rek bugaan xalifa bu Thiénaba sa papa itam mu ngi nii di yegg ñu bàyyi ko rek mu toog boogaan xalifa Thiénaba bi sa wër ñu may nit ñi ndax kilifa yi dañu bëgg a sànni kàddu sécurité bi ngeen baal ma jëlal ma yaay jaaga rek mu toog sécurité bi jëlal ma yaay jaaga mu toog bu ñu ko defu rek yoon bi fii nit ñi dañu jàll nañu may yaay jaaga mu toog. maa ngi leen di ñaan nañu may ñii ñu toog. yaay jaaga mu ngi nii di doog a yegsi. yaakaar loo doomam waali jàkkaarloog doomam bu gaat mu ngi wax léegi waali ni ko yow yaa ñàkk sa yaay yow yaa ñàkk sa xarit ne ko yow yaa ñàkk sa yaay sa xarit ndax mooy sa féete bugaan nee na dañu ko dimbali ñu may ko yaay jaaba ak waali ñu toog nañu leen may ñu toog nañu leen may ñu toog ñu toogoon fii ñu may yaay jaaga mu

nañu may nit ñi ñu toog nañu dal nañu am sëñ Amidou Diop kaay wuyu fii sëriñ bi sëñ Amidou bu dee yaa may déglu kaay wuyu sëriñ bi am sëñ Amidou Diop bu dee yaa may déglu kaay nga wuyu sëriñ bi Thank you. nañu nañu sécurité bi sëriñ baa ngi nii di génn nañu ko may sécurité bi sëriñ sécurité bi sëriñ baa ngi génn. bu ko defee ñu daan na wax lu bari yoon itam ñu dégg muy wax ni man muumi mooy sama yaay jaaga mooy sama maam démb yaakaar naa damay wax ni site internet yi yeeg tiktok yi tax na dara umpootu. yoo aéroport bi yëpp boo dee xool ci tiktok yi da nga gis muy jooy ngir ki mu ñàkk ni mu toll ci moom complice bi doxoon ci seen diggante ñoom ñaar xaritoo bi doxoon ci seen diggante ñoom ñaar tabaarakallaahu bugaan nag sa sëriñ a ngi nii di ñëw bugaan tabaarakallaahu ñu may ko mu teeru sëriñam nañuy toog rek ñu may bugaan mu teeru sëriñam sëriñam a ngi nii di ñëw sëriñ bi yegg sëriñ baa ngi nii ñu may ko sëriñ Abdourahmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma dib xalifaam ànd daaru xudduus gépp ndax moom fu mu teew yoonu mucc fa teew diggante ma bugaan bi muy accès la taalibeem Wally Seck di accès nañu may nit ñi kay wuyu fii sëriñ bi sëriñ Amidoune wala yaa ngi may déglu kaay wuy Serigne bi am Serigne Amidou Diop wala yaa ngi may déglu kaay nga wuy Serigne bi. Just président kenn ku ci nekk yaa ngi ay mbubb yoo ñawagul te moom moo koy ci doxal te defu ko dara lu dul ngir bëgg ñu gën koo jàppale gën koo taxaw kon nag noo ngi ñaan Mbàkke nga ñaanal ko ñaanal njaboot bi ci bàyyi sans borom sàmm leen teg ci ñoom loxo ba du yeggale noo ngi lay jéggalu nag bu baax a baax kàddu yi waaye li ñu yéenee wax moom ëpp na lii ci mbooloo bi nu bàyyi du loxo incha allah am dafa am rek lu may seedeel moroon kii fi teew muy Serigne Abdourahmane na ñëpp xam ne Serigne am di Modou Mbend mii di xalifa Baye Faye ci moom nga jéggul woon waaye keroog bi mu ko yaay Seex Ibra Faal la ne ko dama jébbalu ci xalifa Sëñ Tuubaa loolu dafa maa marqué de wax naa ko ci télévision bi wax naa ko fépp mais xoolal loolu xalifa mu toll na la ni kuy Baay Faal mooy sa kilifa boo ko yilifee Baay Faal yëpp nga ne ko demal Sëñ Tuubaa transféré sa ab taalibe bi nag Seex Ibra Faal la ko defoon ci sëñ Moussa jox ko sama am nga defaat loolu mbàkke naa ko seet yàlla nga ñaanal borom amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke président Bougane sax na lool xolam sedd la sëñ Moussa Mbacke xaalis